sallam ak cheikhul xadim waaye am mbindam jëme ci moom yaa ngi koy wax sànq ci biir wax ji eh, ay mbindam karaamat yi xattu yët mbindam sëñ bi waaye qualité ak mbindam sëñ bi la ci tegginu yenente bi sallallahu alayhi wa tagginu mhm. eh, yonante bi alayhi wasalaam mhm. da gis ne ay taggam day fees dell ak shawq mhm. ak zëwq Euh, yéeg yéeg bi nekk ci aw taggam mhm. ak cofeel gu rëy gi ci ball mhm. moo lay wane xamunu kenn ku ko gën a sopp yonante bi alayhi salaatu wasalaam si isaal yi muy jàng xasida yi léegi wax na ko mhm. muhammadun yuhibbuna wa qaama bi maa yasuruna wala nulaama sëñ moo wax ne muhammadun ci boppam yonante muhammad moo ko bëgg nee na Muhammad mhm. moom dafa bëgg yonent bi waaye nee na Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci moom da koo bëgg mhm. te it ba mu ko bëggee itam dafa taxaw te temm ci loo xam ne lu koy bégloo la moom sëñ Tuubaa te nee na noonu kat kenn moo taxaw ci liy bégloo yeneen ci luy bégloo sëñ Tuubaa mhm. yeneen bi moo taxaw ci li koy bégloo moom Cheikhul Khadim ci luy bégloo Cheikhul Khadim kon day mel ni li ñoo saan wa demoon moo del si xam daa bëgg yonent bi sallallahu alayhi ba noppi jóg ci lu koy bégloo ba mu ko béggalee nag yonent bi bu ñu ko fay loolu bëgg ko moom itam ba noppi di ko bégloo di ko bégloo ndax sëñ Tuba yasuru rasulallahi xatti yi maanaam bindam day bégloo yonante bi alayhi salatu wasalaam mhm. maanaam yudxilu surora fi xalbi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam day tabbal ci xolob rasulullahi alayhi salatu mhm. na sama mbind day mboolem njariñ yu sallallahu alayhi wa sallam làq rek sama mbind da koy gësam day mel ni garab gu meññ lool mm-hmm. ba fees del ba kenn mu tëkkat te sori kaw ba kenn mënu koo yéeg mm-hmm. waaw waaye mbindum sëñ bi day mel ni ku ci joor ay nguliyat noonu muy sotti ko mm-hmm. noonu lay sottee njëriñul rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ndax maanaam bu ko bàkkee rek bu ko bàkkee rek faw rek da loolu mooy yabusum tidaahi jumlatan xaasa an nabi min an nafi wa bahru zul jël bi wan na fi te yaminu nabi fi ataaya li zihtida bokkut ak yasaaru nabi fi xafaaya li siatida mm-hmm. waxoon na fenn ne baslun wa basul liman laanu wa man jaaru mm-hmm. waxoon na fenn in raama ilman aw raama xunman aw raama zulman baaxiri xaay fa saaka yuhda mm-hmm. ilman moo ko moom wa saaka yuhda xunman moo ko moom loxoo yorda zabi shaqaay mais zulman moo ko moom xoolal ni muy ni muy ni muy ni muy tagg yonante bi alayhi salaatu salaam maanaam tagg yoo xam ne hmm. maanaam amul ak matadi maanaam ci kem matuk yonante bi salaatu salaam noonu la Sëñ Tuubaa di tagge yonante bi alayhi salaatu salaam xam na ne moom la yàlla gënal ci lépp moom la yàlla gënal ci màggal ci lépp hmm. waaye doy na sëkk doo fekk mbind mbindam Sëñ Tuubaa donte wenn bayit la hmm. mu ne yàlla may na ma nangam te néewut jaarale na ko ci yonante bi salaatu salaam loo dégg mu ne yàlla may na ma ko rek da ngay dégg mu ne jaare ko ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam sëñ Tuubaa mooy koo xam ne mësta teggi yonante bi alayhi salaatu wasalaam mësu ko teggi dem ba gëlëm li dal nit yàlla yu baree baree bari te ak mànd di ko waral maanaam gëlëm ba dootoo gis alayhi salaatu wasalaam lool am na mhm. loolu am na ci magi suufiya yi yàlla leen yàlla yërëm loolu am na ci ñoom am na ñoo seenu seenu mandite mhm. àggoon na ci mënatuñoo gis yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. waaye seen mandi googee sëñ Tuubaa daa wax ne euh, maa leen ëpp mandite fuuf <laughs> waaw maa leen ëpp ak mandite fuuf gis nga koo dégg mu mandi bay wax wax ju kenn mënta dégg mhm. maanaam la mu naan bu dee kaas sëñ Tuubaa moom bagaan ga la naan te teewu ko ànd ak tranquillité maanaam ànd ak dal dégg nga maanaam sëñ Tuubaa loolu loolu dafa dafa dafa bokk ci li gën a yéeme nag ci moom benn bis mas nañuy wax Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani yi bayaag mu ne jiili day Seydina jiili day noonu la ko daan waxee Seydina jiili dey ndeyam dafa baaxoon lool bokk ci saalixaat yi moom itam moom farlug boppam moo tax mu mel nii mu mel dégg nga mm-hmm. daane géejug leer géejug leer ga nga xam ne suñ borom da cay màndal mm-hmm. ba mu ko cay yebal moom melaw njanaaw la fa misaaloo melaw njanaaw waaye ne ba mu ci ne caw sàll wa dafa dal di daanoo jaaxaanaay ndax fooraayu leer gi sàll wi la ne caw rek daanoo jaaxaanaay daañ ne looloo tax mu daan wax loolu yi muy wax boo delloo ci ay xasiidaam da nga ci fekk wax yu rëy yoo xam ne bopp xawu ko attan mm-hmm. te dara waralu ko lu dul mànd ci leer boroom te xejju boromam la buy wéy nag moom si Cheikh Abdul Xaadir Jilaani mm-hmm. mag la du gone moo moo moo moo jiite tarix alxadiriya mm-hmm. dëgg sëñ Tuubaa dafa waxaat feneen ci nettali daal ne géej gi suñ borom daan mandale nit yàlla yi day ba ma fa cëppee ma dëtëm bi ma siggee ban boo koŋ la fa bay maanaam baywul dara lépp la naan mm-hmm. si Musaa Ka ne géej ak xekkam gëmu dëtam ba ne ko secc mook ñoñam ma seesu caa nandal ko xam wu jëm amul ci xarnu bi toqeen gi doy xarnu bi lépp la naan moom sëñ Tuubaa mhm. boo demee ci midaaj yi daf ca wax bayit woo xam ne loolu wane na euh, lu lu yéeme la ci wàll woo maa ngi ñëw mhm. bayit wi daa wax ne taribtu bayit ma neex la nag taribtu mhm. sëñ saar yi mas naa wax ne bu ñuy jàng xasida maa ngi naan waaye saa yu njàngee midaaj yi man dina moo tax kuréel yi ko daan jàngal duñ tëj mukk te jànguñu midaaj yi waaw sëñ bi daa wax ci biir ne taribtu gis nga ab tarab mooy siigiree gisoo ku mandi mhm. mandikat yi gisoo nu ñuy def nu ñuy sigéree doo gis mhm. fi na am mandikat da ngay digg mu wax lee wax lee baal yi du façon lu ne ci xel mi rek mhm. te moo yi muy wax doo xam fu mu ko jëlee nga xam ne boo ko jege sax yow faw nga reetaan dégg nga gis nga mol wu ndaw aw mol mol mooy doomi fas wu ndaw gis nga ni muy sigéree day tëb ay pàllangar daw bu fëli mu seet seet frein ak pënd mi ne kurr ba nga jàpp ne nga xam ne kii sigiri gi ne ci moom mhm. sëñ Tuubaa maanaam tarab googu dafa am tarabu ruux yi maanaam ruux day sigiri mhm. nit yàlla yu bari seen ruux bu man dee day sigiri mhm. sëñ Tuubaa nee na sigiri naa waaye bi mu sigiree itam li ko li ci yéeme mooy bi ànd nii kay suñ binti baay yi mu ci rek waaw xam nga sigiree ci man di ba noppi nekk këyis maanaam intellectuel ci péyub suñu borom nekk intellectuel boo xam ne dangaa ñaw ñaw ñaw goo xam ne maanaam doo jaawale gauche ak droite daal seen baax léegi ah waaw xanaa kon loolu da ngaa desee man di mu ne wa anniya rayaanun rayaan dañ koo tëgg ci siixa fa xaal hmm. baat la boo xam ne bu ko arab waxee mooy falamanayam sëñ bi ne damaa man di bataay ah waa xanaa kon sangara sa leer si nga mande daa daa desee for mu ne bi asfa asfa afaala tafdil la dégg nga hmm. bi asfa mi yaihi maanaam na sa gën a foor ci sàngara yi suñu borom yi muy màndali góor yàlla yi mhm. nee na ci laa màndi mhm. ba sigiree te teewul ma ma nekk nag kayis kayis loolu loolu loolu loolu day wane ne ku mel noonu nag moo mën a tagg yonante bi sallallahu alayhi wa sallam dëgg dëgg dëgg tagg mhm. ndax daraja yu waaye mës a wékkoo ak koo doon teru sa daraja sëñ Tuubaa fekk na la fa nga nekk dal koy rékki ci sa baat ba nga doon digg toq mhm. mu dem takkal ko rasul mu defaraat ko ba mu jekk takkal ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba demee ci lam yëbdu mhm. dane xul xadama u fawqa kulli raqaba xul mooy kan xul mooy lam mhm. xul xadama u fawqa xam nga sëñ bi li ñu wax li ñuy wax radd bu la ko day def wala mu lay naqd diine ji ne ci moom ak teggin yi day tax defin bi day rafet wuute jànkat yi tey jii nga xam ne bu ñu la doon weddi buñ bindee ci yow téere diggantey mbaam xuux lañ lay niróleg ak i goloo ki yéefar ak i mubtari ak i fenkat ak bu buñ noppee yow daal dañ lay def nituk sobe koo xam ne dañuy jàpp ne yow maanaam buub sànni ca kam bi saware rek a jàddu ci yow mm-hmm. loolu du noon la ñuy wëbatee gëléem mm-hmm. sëñ Tuuba dana du nag maanaam dana rat waaye day tege ci kaw diine dafa am ci nit yàlla yi ñu bari ñoo xam ne dañuy wax ne sama ñaari ndëggu yi teg naa ko ci doqi mboolem bindee fi ak yu mel noonu mm-hmm. waaye sëñ bi dane qul qadamaau fawqa xul waxal ne xadamaa ñaari ndëggu yu rasulullahi faw fawqa kulli raqaba mu ngi ci kaw ndodd yàpp min ustaaral xurru kulla man xaba xoolal loolu ni rafete sang yu sang yu tedd ya seen manaqib yi mooy seen kaawtif yi ci moom lañ ko abbe abbo min ustaaral xurru kulla man xaba daane muhammadun misaaluhu lam misaalam nag la wax waxul misloom de <laughs> misloom mooy kem bi waaye misaalam <laughs> salaa sallam maanaam amul ci kaw suuf lu yàlla wàcce loo xam ne mën nañ ci expliquer yonent bi salaa sallam ba ne dëgg dëgg li mooy darajam hmm. moo tax mu ne muhammadun misaaluhu lam yaati ma mada wa abadan nga waxoon na ne wal mislu xattu lam yura walan yura fi chiyami xoolal ni mu ko màggalee hmm. wal mislu kem yonent bi ku mel ni moom xattu hmm. baat la boo xam ne bu ko arab waxee day firi mukk ca la wéy <laughs> waaye bu nee awdu moom day firi mukk ci leen jëm <laughs> moo tax mu ne wal mis lu xattu lam yuraa gisee suuf ko lam googu xarfu nafiyin wa jasmin wa qalbin mu daari an madiyan <laughs> dégg nga lam moom lu mu dàq sax mën naa ñëwaat ci dëgg-dëgg waaye mu moroom daal lam yuraa gisee fu ko woon mukk ci ñëwey waaye lam ca teg nag moo garaw lan googe nga xam ne xarfu masdariyin la moom wa nafiyin nga xam ne lu mu dàq duutu ñëw lan googu la indi nag walan yuraa fichier mi xoolal way woowu ni rafet rafete sëñ bi mhm. wala mis lu xattu lam yura walañ yura fii chemi gisee fu woon ci réew yi waaye kenn dootu ko gis ku mel ne rasulullah sallallahu alayhi wa sallam allahu na feneen ne ahmaduna al muxtaaru laa yubaaha xattu wa awdu kaana laa yu xoolal loolu ni mu neexe mhm. xoolal xattu ak awdu ni mu koy jëfandikoo ci biir ci ci biir way wi taaro way wi nga xam ne day méngóog rafetaayu taaru ki muy takk waaye bu demee euh, ca ca ca ca ca ca euh, lam yëbdu dara jëm euh, wala geneen xas dëgg la jamaaluhu yes bi fuaada raay raay mm-hmm. mm-hmm. man xun na biir muntaxa mm-hmm. xas la goo xam ne ba mu yebal si baara saw màkk la ko bindan jox ko ko mu yóbbale ko waaye jamaaluhu yes bi fuaada raay mu ne taarub rasulullah yes fu fuaada raay maanaam day jàpp koo koo xam ne gis na ko mu ne njol makk boo ko nee jàkk gis ko rek maanaam taar bi ne ci jëmmam moom da mujj rek léegi-léegi ngi topp ci moom far dib jaamam rek ci gàttal waaw noonu noonu la itee ma ne su ko ma ne ko xool ne ko jàkk ba noppi di ko muñ di ko muñ <laughs> dégg nga xam nga walwacu maayil xuma mi xar kanamu yonent bi maanaam day day wuñ wuññi njaqare gis nga ni muy melal yonent bi nee na xar kanam bi day wuñ wuññi njaqare bu fekkee nit ki dafa amoon njàqare bu jàkkaarloog xar kanam rasulullah sallallahu alayhi wasallam sëñ nee naan njàqareem day daal di dañ fasansi ndax fi ne yow bu dee da ngaa yoroon métit ba jàq boo ko xoolee da ngay fàtte bi dee da ngaa alal bor ay bor yu xamatoo fooy sa tànk boo ko xoolee da ngay fàtte loola maanaam loolu maanaam ja jàqloo mhm. boo xoolee rasulullah dangay ngay fàtte loola waaye da ngay delluwaat ci biir cofeel li ma la wax ne bayit yi day fees dala ko cofeel mooy mhm. baadu wal xobbu yuddu nii nii ak wa shawqu yekk wii nii xoolal yooyu baat nee na wal xob cofeel cofeel gi mu sopp yonante bi sallallahu alayhi wasallam sëñ Tuubaa nee na yuddu nii nii maanaam dana tawat su la dañu wax ne banoo osra ñoom ñoo dàqoon a bëgg dañ daan bëgg ba dee maanaam amuk cofeel ba far ca faatu ci cofeel gi hmm. dégg tawat soosu nga xam ne danaa la nag sëñ bi nee na àgg naa ci bëgg yonante bi ba àgg ci wéradi googu nag te loolu tawat soosu ñi ko xam nee nañu ma maanaam bu dalee nit maanaam diggante tàngoor ak sedd ñoo yem ci jamono ba nit ñey jaaru yow mën nga cey upp waaye jamono jën nit ñey upp itam ngirub sedd yow mën nga cee jaaru ngiru tàngoor maanaam ay mbir la yuy jaxasoo yoo xam ne loolu te lu neex a xam la mm-hmm. Cheikh Abdoulaye Ahad mii ci biir këram gii bi ñuy defar miir bi mhm. am na mag mu taxoog moom te jege ko lool moo xam ne daa wax benn baat ma dégg ko mhm. mu jekk baa mu ne cëy billaahi néeg bi ki fi newoon xaw ma nit la xaw ma kum doon ma daal di watu ndànk ba xaw koo jege ne ko bàyyi lu tax nga wax lool mu xam ne day fekke naa ba tey muy def loo xam ne ba nëgë ni xaw ma lu doon ma ne ko lu mu doon mu ne ma taal climatiseur bi yokk ko ba mu sës clim yu mag yooyu mhm. nii bi day sedd ba yow na ngay saxel day nekk ci sanku ma ne ko ma taal taal ab fourne boo xam ne kenn xamut nam boyee teg ko fi sa kanam dolli ci hmm. ma ne ko am na taaluwaat lettre bi yorog yorog wantay di upp hmm. ne ma lépp ci benn jamono Cheikh Abdoulaye daan ko defandoo hmm. nga xam ne yow dangaa ngaa xamul daa bëgg seetlu ci kilim bi wala dafa bëgg a jaaru ci xal yim tiim wala moom daa jublu upp ci wantaay gi wala nga xam ne yow doo xam daal kii ba mu mu bëgg daal kii lu mu bëgg loolu xeeti cofeel gut not am na yu am na yu yu mel noonu yu muy def ci nit sëñ Tuubaa waxoon na ko bu yàgg wal xob yóbbu nii nii cofeel la rasul sallam yóbbu na ko ci barab mbir mbir yu mel noonu waaw ba Cheikh ne ne cofeel gi ñaas na ma <laughs> nee na sopp gi ma sopp na ma mhm. xamoo bu la duggee dëgg maanaam day soppi sa jëmm mhm. maanaam jox la beneen forme boo xam ne ñi la ñi la xooloon ñi la xamoon démb ak bërki démb mhm. buñ la gisee tey geneen nit ngay doon ci ñoom dégg nga bi xobbin xat baral kabidaan maanaam cofeel goo xam ne daa yett xol bi te bi man bi xubbihi nasiitu layla guddaayu émission bi du ñu may ci détaillé ko waaye kon danañ détaillé bi man bi xubbihi nasiitu layla mhm. wa zahaban wa fiddatan wa la maanaam yett yi nit gën a bëgg ci kaw suuf mhm. mooy layla mhm. ak zahab ak fidd ak xaylu yent yi nit gën a bëgg ci kaw suuf bëgg yentu sa sa moo dox diggante sëñ Tuubaa ak loola moo tax bu bu koy tagg tagg yi maanaam bi xubbi layla waaw waaw bi man bi xobbihi nasiitu layla waaw nee na ci ci sopp gi ma sopp sallallahu alayhi wa sallam nee na ci laa fàtte layla ci la fàtte zahab ak fidd ak xayru xam nga boo gisee muy bëgg soxna yi bëgg xaalis bëgg xaalis bëgg wurus mhm. bëgg ay warwaay bëgg ay warwaay nee na loolu lépp ci ci ci bëgg xam nga xobbeel maraani wa ahli wala wala daa jëm baxoon mhm. day day daal di tabiwaat foofu waaye dami wa ahli wa awlaadi fida ulahu abdan xadima lahu muskaan lañ sanada mhm. loolu itam day tabiwaat foofu kon moom bëgg gi ko bëggoon bu ko daan tagg nag suñ borom defal na ko ci tawfeex goo xam ne lépp luy daraja akuk taxañ mhm. moom sëñ Tuuba mhm. ak fat foog faydoog këch foog lépp suñ borom da ko daan indi ci tagg yi alayka usni bi abkaarin ajibu biha mhm. minal fuyuudi lati tan sabu wii daana gis sëñ bi tan sabu wii daana gis nga faydu buy walangaan faydu boo xam ne day indoone ci dënnub sëñ Tuuba mel ni jamono bii ni lenn yenn barab yi mel rek nga xam ne day indoone ba foo dugg ci dënnam rek fekk fa xuru fees jël ak faydu nee na li muy tagg rasulullah sallallahu ci faydu boobu lay bàyyi ko moo tax sëñ tubaa ay xasidaam du xasida yu yu nit di jàng arab nii rek mm-hmm. maanaam ab mawhiba jekku xalima di way déedéet mm-hmm. loolu boo ko defee ba noppi teg nee xasida gi mm-hmm. ñu génne li ci bakkan moom ak li ci adduna moom li ci bëgg ak ndaana ak bëgg ak ndaana ak bëgg ku la tagg ak bëgg ak daqaway bëgg xoola ni mu defee fi yooyu boo ko ci génnee dara dur jës arafe sax amaa dur jës sëñ Tuubaa mooy liggéey xasida goo xam ne maanaam faydu buy pallax la moo tax ay xéeg lay doon xoola bind ni mu baree lim bind te rubaamu xasida gim xoolal mawaay bu jotewut ak gis bu dara gis bu jotewut ak muqaddimaat dara muqaddimaat jotewut ak miimee dara miimee jotewut ak taysiir dara nga toppe ko noonu ci xasida yi ma xam ba jeexal yow nga ñëw continuer ba jeexal kay ñëw continuer ba mu di jeex te am xasida yoo xam ne xamuñu ko loo xam ne ñi koy misaal ci sept tonnes dañoo wax sept ton mais kenn xam lu mu toll ndax koo xam ne am na xasida yoo lakk am yoo suul te njuumte wala ñaaw ko taxut xasida gi xasida gi gën a rëy ci xasida muy téere xam Masaalikul Jinaan mooy téere bi gën a rëy ci téere di bind ci xam-xam mhm. à l'âge de vingt ans la ko bind moom sëñ Tuubaa mhm. dund nag moom soixante quinze loolu dañ dem ci koo xam ci bindkati arab yi nga xamoon kenn ku ci ñemee bind xasida ñaar fukki at mhm. dund ak moom juróom ñaar fukki at ak juróom te soppi woo ci araf maa ko yokk ci amut allah ndax jamaalul adab yi bi ci nekk amul dara dara dara lu koy sensé taaru gim taaru ak mat gi ak sell gi ak set gi ak jaar gi yoon amul amul dara lu mu ci réccu te dama ne ku wan ginnaaw sëb téere ñaar fukki mhm. boo ko xoolaatee am loo ci wëlbati loolu moom génnuma ci kenn xoolal ku jàng la ko waram nag mhm. dégg nga mu waxam ne yaquudu ulumal xaybi rabbi muallimi ila ila kelkili faydan mhm. yuri lafza wal naa ne faydu bi mooy indi lafz yi ak maana yi katabtu naaxilan min allawhi wa min qalamihi wa fi xurufi lam na min sëñ Tuubaa ne damay bind di jëlee ci lawhul mahfuus hmm. ak ci xalima ga xam nga min al lawhi la wax wa min xalamihi min al lawhi wa min loolu sew la sëñ bi hmm. nee damay bind toxale ca lawhu ak ci xalima ga hmm. nee na samay samay samay xaraf du ma ci nar man xadim rasul loolu moo waral bu ne cas xalimam isa katabtu tazza arshul baaqi wa sabaxat malayku tibaaqi bokkut ak isaaka tabtu tasa arshul maliki wastafa bi tasbihi kulla maliki bokkut ak isaaka tabtu tasa arshullahi maa ibaaxi kulli jeeñillahi mhm. te gis nga bind arash di yëngutu mhm. yëngutuk arash ci kenn képp lañ ko mës a dikk mhm. mooy bi saa dub nu maas faatoo day alayhi salaatu wasalaam nee na ihtasal arshu bi mawti saa dib ni maas arash jaayu na ngir faatuk saa dub nu maas point amul fenn fu ñu ko mës a dégg ci àdduna sëñ bi ne saa ma ne ca sama xalima arash day yëngu kursi du jaayu malayka yi di sàbbal noonu la ko waxee mm. te noonu yi mu ko waxee noonu rek la amee mm-hmm. kon gis nga xasida yi muy tagg yonent bi doole jim am mm-hmm. ndax day tagg yonent bi mm-hmm. ca maqaama ya ak maya yemul ci nan ko Abdoulaye la jur wala Amina jur yemul ci loolu def na ko nag waaye daf dafa dem ba ci ay xaalam dëgg ak ay darajam yi gën a kawe xadra yi pays ya foofee mu fay tagg sallallahu alayhi wasallam xam nga am na lu mu waxoon loo xam ne da da ngir nga xam fi ak yonent bi daa waxoon ne na maanaam kuréel lañu boo xam ne ci malayka yi maanaam xutbul xaws du leen yilif li di wax iblis naan ko am kunta min al na maanaam aaluuna xutbul xaws du leen yilif ñoom kuréel lañ bu garaaw a ci malayka yi daa mel dañ leen a settee ñu ñu ñu nekk ñu indépendant ñoo xam ne daal ñu ñu kawe lañu ñoom nag bu ñu xëyee dañuy wax ne dañuy siyaari ci seen borom waaye bu nu demee ba jéggi yenn pays yi mhm. ba daanaka fàddu ci pays yëpp ba tab tàmbalee tàbbi ci xadaratu zaadi pays jëmmam ju sell ji nag mhm. leer yay bàyyi ko foofa di rot ci ñoom mhm. maanaam leer yi da leen di seeyal mel ni perméable yoo teg ci kaw ay sawara mel ni perméable yu tiim sawara noonu la ñuy toqe dañuy toq de di ruy di wàcc di ruy di wàcc di di wàcc ba tolloog pays yi miinam door a tàmbaliwaat di formé mu waat ba doonat ñan doonat ñooñu kañ la ñuy yegg sëñ tubaa ñu ne foofee nga xam ne mënuñu faa teg seen tàkk mhm. soob na yàlla ma ngooy ci mbaggi rasulay ba jéggi ko jëm ci sama borom mhm. loolu moo tax la muy wax koo xam ne yaa ngi fii kuy lekk cere baa ngay naan dugub malaka nen alma milkan laa yafuusu bihi man xootuhu duxnu aw tasxi misxaabu sëñ tubaa bi bind nee na kuy seex dugub mbaa ngay ŋàbbu pot di naan mm-hmm. suñ borom wamaata na ma xam-xam yoo xam ne jomb na mënu ko xam moo tax kuy nelaw waroo yëpp sëñ Tuubaa kuy lekk ba suur waroo yëpp sëñ Tuubaa kuy naan waroo yëpp sëñ Tuubaa mm. kuy sobe waroo yëpp sëñ Tuubaa lii ma gis ci jamono jii nu toll nag mm. ay nit ñoo xam ne feraguñ ijji sax mm. ndax bu dee téere jàngul ci lu may ñaar yaye nañ leen ci as diplôme suñ fa diplôme yi caaxaan yii yoo xam ne tekkiwul dara ba dara boole ñuy oustaz docteur docteur nangam de licence nangam nangam nga tàmbali tëgal say mag di am looy contesté ci xasida yi mm. wala di am looy jiima jëm ci sëñ bi mm. koo xam ne waxuma ne jëmm waaye génn xasidaam képp sa adduna sépp boo ko boo doon jàngat fanweeri at ngir xam xasidaam ko mënu ko xam mm. kooku loo xam ba mën a jóg di dal ci xasiday sëñ Tuuba télé nga gis ko ci gone yi nga xam ne xamaguñ dara moo tax as baaxut as xam-xam mara day tali da ngay jàpp ne weesu nga say morom te eggagoo fenn eggagoo fenn wallahi xasida yi mat naa wagar mbooleem ñi nga xam ne ñoo gën a fees te dajeeg sëñ Tuuba sëñ Mat Jóob Faxa sultaanul aarifina réew mii ñu nekk waxuma tuubaa waaye kërug diine goo fi xam teg na fa tànkam ñu natt ko ci xam-xam siñel ko ñee ko yaay sultaan ñee ñee ko yaay yaay maliku nuhaat ñee ne ko dolli nañ ci wàllu xew yiin nga xam ne ñëpp ko reconnaître sëñ Tuuba jox na ko xasida koo xam ne da koy tàmbale ca bopp ba la koy xool ba ca geen ba firu ci ji mu delloo ko sëñ bi ne ko baarakallahu man de xasida gi gan la ci man ndax xuma ci benn baat sëñ sëñ Tuubaa ne ko mat jëw nu ngeen di xamee luxa mu ne ko dellu ci xaamuus ak mun jit mooy téere yooyu nga xam ne ci kay jàngi luxa rek mu ne ko ah mat jëw kon du ngeen xam sama luxa man sama loxo ci law lawxul mahfuus laa koy jëlee moo tax duggoon xam sama loxo macha allah demal ci biir bi sidqi saddaxoo siddiqu baax dalatan laaj nañ ko suñ sooy mu ne xaw ma ko baax dalatan jooju rek baax dalatan jooju demal ci nga wër dictionnaire yëpp bala nga koo gis doo ko fekk kon dangay xam ne sëñ Touba loo bari bari xam-xam loo jàng-jàng-jàng mmh. boo ubbee ñaari xasidaam balaa ñett nga fekk ca waat yoo xam ne mmh. da nga dem ci mun jit dem ci xaamusu tulaab fu ne da nga fa wër mmh. fanaan ci këyit yi mbaa nga fanaan ci application yi mbaa nga fanaan ci internet bi ba bëgg dee doo ko gis te doo ko xam macha allah dégg koo xam ne nag day wax loo xam di wax loo xamut tey ci moom dafa baax macha allah kon tagg gi muy tagg yonante bi womatal na ko maqaama yoo xam ne julli mayu ko wóor mayu ko asaka mayu ko aj makka mayu dégg nga wax sëñ Tuubaa ma ko wax mm-hmm. madaxi lahu qad qaadali maqaama lam yaxwihi man fii layaali qaama waxam na ne madaxtu rasululay attaka annanii mahal aali wal asaabi bil jismi wal xalbi mm-hmm. tàgg naa rasululay ba maak saxaaba yi ñoo bokk xol ba ku lépp mm-hmm. te it yonente bi da koy jegeñal maanaam xejj la day tagg ñu koy womat di ko jegeñal ba mu ne wasirtu lil muxtaari kal jaariin macha allah day ñu ko jegeñal ba mu ne bashariñi laaw bi anni waa'idu fi ahli badrin maa naxaani jaa'idu day tagg ñu koy xajjal di ko jegeñal ba digganteem ak yàlla ak rasulullah dara doxu fa mm-hmm. radiallahu taala anhu koo kii na nga xam ne moo gën a xam yàlla kuy xam yàlla mm-hmm. si Moussa Gueye waay si Moussa Waalo ab xalifa mooma nettali ba si Moussa Gueye nee na ko mm-hmm. ilaya qaala lahu maa lam wala yakunu abadan li mumkini nee na si Moussa Gueye waay nee na ko sëñ Tuubaa nee na suñ morom dane li ma la jox ci taqwa wa xajja maanaam ragal yàlla ak toroxlal ko musuma koo jox ku ma sàkk te duur ma ko jox kenn xoolal kooku fi mu àgg ci dayob ragal yàlla mm-hmm. kooku gone dana ko këll këli gone dana ko fontoo sëñ Tuubaa moom mm-hmm. maanaam tawféexi yàlla la ju fi ñëw mm-hmm. te it ëf du ko fay te ba max du ko daane moom sëñ Tuubaa te coow du ko fi jële jant bu fekk la ba jëm yoor yoor xaj yuy baw ne du baw ne du fenk dañu seeni gémmiñ dana xotti ko naajoo fekk leen fi waaye faw mu fenk sëñ Tuubaa moom jóg na ba noppi deftul karima wa ataba lil xira wala azalu misla shamsin fil xura loolu moo ko moom sëñ Tuubaa